waaw asalaamaaleykum mbokk internet yu Diégo parle foot nuyu naa leen ziar leen di wax képp koo xamante ne gan nga ci suñu chaîne bi duñu la wax lenn lu dul nga abonné te activer cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal euh, di nga bokk ca ñu koy njëkk a gis woy leen di like di commenter ak a partager loolu ngeen ñu mën a jàppale bu baax a baax mais également dañeen ñaan képp koo xam ne yaay seetaan suñu vidéo tamit nga taal sa VPN Euh, mbokk yi ñu ñëw wax ci xibaaru suñu gaynde yi fas yéene nañoo wax ci Sadio Mané mais également ci Nicolas Jackson bi nga xamante ne euh, fa daanaka daal euh, ay mbiram ngir dem fële ca Chelsea fa daanaka yemb na ci ñaari point yooyu dañu fas yéene wax mais rek commencé suñu international sénégalais bi di Sadio Mané moom nag gannaaw bi mu defee doublé bu historique Sénégal contre Brésil nga xamante ne la planète du football yëpp teg nañ ci seen bët mu nekk artisan ci victoire u Sénégal contre Brésil 4-2 donc gannaaw lool nak Sadio Mané yëmu ci mais dafa illustré wu def geste bo xamantene euh, brésilien brésiliens yu bari ñom ñoko ñom ñoko apprécier ba ba diko defal ay éloge sax instant bi euh, yenn ci brésilien yi euh, nañ seen appréciation ci ci ci réseaux sociaux yi ñi ñi ngi naan ndax Sadio Mané sax possible na ngir mu mën naturaliser Brésil ñi ñi ngi naan ñàkk koo bëgg daal wóorul ñoom daal kenn ku ne mi ngi fësal bëgg yi nga bëgg Sadio Mané ndax geste bu extraordinaire bi nga xam ne suñu international sénégalais def na ko donc ku ne xam ko ci humilité bi mu am Sadio Mané Euh, du loo xamante ne tey jii def ñu yéema kii di Nicolas Jackson l'attaquant international sénégalais moom tamit euh, jamono ji daal dem fële ca Chelsea daal fa daanaka yemb na bu ñu sukkandikoo ci euh, Fabrizio Romano muy taskatu xibaar boo xamante ne ñëpp ko xam ci wàllu mercato moom nag nee jamono yi ki nga xamante ne mooy Nicolas Jackson dina dem fële ca Chelsea ci bile week def euh, visite médical maanaam dinañ ceytu yaram wa xool ko ba xam euh, ndax amul benn jafe-jafe ci wàllum wér-gi-yaramam ceytu yaram wi buñ noppee ci lool nag dina xaatim euh, contrat bu bu bu gudd lool buy tolloo ko ci juróomi at ba juróom-benni at nee na fa daanaka daal lépp yomb na Chelsea daal 35 millions d'euros la teg ci table bi donc Villarreal jox international sénégalais bi Nicolas Jackson nga xamante vraiment il a du talent il a du potentiel ngir vraiment. défi de taille la mais am nañ yaakaar euh, ne que ne dina fa wane boppam bu baax a baax donc li leen di leen di like di commenter jaa ngeen jëf.